waa xarit waaw mais dañoo war a dem du monde de. ba de. parce que yooyu c'est du monde bi dina neex ah, ah, la ñuy def ba dem. jéem a gisante ak Père ah, de a def. barke yeneen ci mais dañ war a dem du a suñ tuur bi. ban tuur. tuur bi ñuy def sag weeru koor. tuur la la. baadu bi la fekkoon fi nga doon kii benn baat. waa tuur boobu la. war a kaa toogoon. Eh, kan ko fi kaayee. yaa ngi eh. waaye nga tey waay. waxal teye teye. waay baa nga ne bis sax. kanaan kaa. bett nga ma ay fay ay fay bett nga ma. ki xamul tuus waay. liggéey dee takk si ngeen tey ka xamoo day. xamul dara. kan tam si ñaar. mais benn baa gi ñu ngeen kenn du ko jël. yéen xamoo leen seen bopp sax yéen. ngeen toog fii naan xamoo leen. war ngeen laabu ji. ngeen mën ñu dayu nii. wax ngeen naan ay xamoo leen. war ñu xamul da ngeen ñuy laajte dañ. ku mer bopp. war yi seew dara ko mooy daw seeram waru jo amal jom ngir yàlla war a ñax nga jom chaque jour moox la ko kenn fekk na la fi ngay fekk ca xale yi moox la ko yow xanaa sax yow booy def lu bon onze mois ferme benn weer doom nga mën nga mën ko muñ ah waaye yow dara yow daal mën nga ne mën nga ne yow yow atum lëmb daal yow ba da ngay dee daal da ngay foo rek lu la nekk def ko nii yaay doy na gor moom kenn du ko toog bu mu sës doy na nag dematuma toog na yow doo gor teman dama lay topp ba seet ndax amo jom te doo dégg. waaw bu lol li beso gis na xalé yi ñëwoon nañ di jël sen ci bi. waré man na yow dag maa wala man lan lan man nar rek moy moy sama yon ci ci bo ab yow bo amé ñak ay ma ma boo amee ñàkk fay rek mata bi bay ci ci nga delloo la moy sax dama takk wa waaw na ci ci bi ñu takk de. kon lan la xalé moy sen lettre yoy ñu non indi. ñeme xalaat ñàkk jàng bi bon yow di mënta dara sa bopp carte soutien sax mënoo ko wax wala dama ko toog ñeme nga gàcce trop. ba di ngay wax trop. da ngay dina yow. yow yee ngaaw. ay Cissé toj na dëkk bi kon xanaa neex. xanaa neex. yow yee ngoo. xanaa neex. Eh, eh, sa daal ci ko passé pour la. maa ngi gisoo benn ba. lu lu change. Hmm. ba ci kii gi yaa dégg. Youssou baa ngi. 23h. yi ku juman. Youssou boo ko ko. ndax ci. daa xam tey kooku daa toj fen. yaa mën a fen kooku toj kooku 39 masi moom ci 100 bi. i wàññi. munu ah. kooku kooku taxaw militaire rek. dugal bal wàññi ma yan. ah papa kooku kooku moo tegal coup franc bi ci militaire bi. Eh, jooy ko mu dugg après ñu yéeyaan ci ko mu ooy. <laughs> benn baax loolu xuloo mën a ko def. <laughs> ay benn baax. benn baax wàññi. yan. yow yaa sa baax wàññi kay. dëgg la kooku daa man de. papa booy. dañ ko war a ah, dañ ko war a oo ci ci liste bi. waay papa kooku ci dem waay. day dem du dem. te waxuma la xale bi baax kii mu baax rek man moom njëkk a neex. Ah. kër yi ni ko quartier bi ku ne fëgg na la ku ne. jox saako ceeb ak. papa yaa ngi doy de yooyu affaire doy yi. yooyu affaire doyaate yooyu day xool technique de football. day xool yu baax. vingt trois heures yaa ngi nii nii 23 jours yaa ngi nii. ñii ñooy dem xool Sadio Mané ak Sèye Ndoye. war na noo dem. Xaadim Ndiaye dem. war naa ah, dem Karambo day dem. war naa dem ah, ah, ak kii dëkk fii nii. kii war naa dem. Balla Balla ah Balla mooy football fan sax moom. Balla Gaye Balla Gaye. waaw moom mooy suba mi nga teeree. kii sax dégg naa même bu bàyyi ko bu ñu koy saa yëngu dañuy dem dañuy dem sax. ba moo moo yow moo dugg bàyyi ngay bàyyi bàyyi bàyyi ngay génn après ku yomb rek mu bàddee. ku romb rek mu fëgg romb teg ba mu caxabal. tey sa kaya ndax. ak kii nii. xool a ah, même kii sax xool ah, sa coow. sa ah. yu si bi xool papa. papa papa. Eh, xam.